salaamaaleykum chers téléspectateurs salaamaaleykum les amateurs de la diaspora di nuyu le monde en lutte en entier di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di nuyu euh, les lutteurs en activité les anciens lutteurs en même temps di nuyu ñëpp daal le monde de la lutte en entier seen émission Joktor euh, neuvième numéro avec Ndiack Albert euh, ci micro bi. acca ñu démb nekkoon le dimanche 17 décembre 2000 2023 Souley Sagne woote woon. terrain euh, Xar euh, terrain Galbi, avec une mise de 3 millions en 3 catégories 3 euh, millions en 3 catégories Rawgadou, léger ak poids lourd waaw léger poids lourd poids léger bi ki wax poids léger bi Moussa Ndiaye est jël Euh, poids lourd bi ngañ seen jël ko ci Babacar Tine bu cher bi nag booy ñu ko jël xamuñu ko mooy poids rawgan bi ñooñu xamuñu leen mais loolu la lamb ji tuddee di félicité ngañ seen bu baax gis nañu demam bi mu dem euh, mu demoon Europe franchement euh, mu ngi fay liggéey bi mais parce que loolu mooy mbër mbër booy bëree da ngay xam li ngay bëgg am objectif am objectif mooy maanaam am na certain niveau yoo xam ne fa tolloo da nga war a def ay innovation innovation maanaam su fekkee am nga les moyens mun nga génn dem bitim réew entraîné ji même bu dee Gambie sax wala Mali wala Mauritanie baax na euh, boo mënee dem Europe nag moo gën a baax waaw dem entraîné ji wuti doole wuti force wuti technique ba pare ñëwaat changer tuuti climat loolu day baax ci mbër ñëwaat te loolu dama ko digal mbër yëpp képp koo xamante ne rek mbër nga nekk. ci champion yi bokk ci candidature lutte simple bi su fekkente ne sa moyen may na la ko war nga ko mën a def mais même bu dul chaque année aussi nga def ko pendant tous les deux ans ou bien tous les trois ans voire même tous les quatre ans loolu da lay da lay da lay am un point bu lay bu mu lay bu mu lay dolli. parce que gis nañ fi atam Mamadou Ndiaye bi mu demee ba ñëw te franchement at boobu neexoon na lool ci moom te loolu mënoon na mënoon nañ wax ne li mu defoon ci voyage am boobu yëpp parce que perte wu ko. waaw Ngagne Sène aussi franchement gis nañu premier sortie dëkkam la ko defee mu njëkk a ñëw remporté une victoire am na fu mu jël aussi jëlaat Dakar démb. donc franchement ñu ko félicité di aussi Babacar Tine parce que Babacar Tine aussi eh, yaakaar naa ne mbaru poids léger la mbaru poids léger la peut-être poids am dafa xaw a ëpp moo tax bind poids lourd donc bu demee aussi ba egg final ci poids lourd yi fa nekkoon yëpp franchement n'a pas démérité ñu ngi koy félicité bu baax a baax a baax di ko encouragé bu baax di ko ne na yokku doole rek doole ñeex tuuti quoi bu ko defee yaakaar na gën a baax su le sañ nag franchement dama bëgg a defaat tuuti ci moom rek parce que il a parié et il a gagné parce que démb le 17 dafa amoon ñaari dates yu considérées muy euh, Grand Yoff avec une mise de 1 million 500 euh, Thiomi production fajis la woon euh, foofu nag demuñu fa xamuñu ko ko jël mais après dañ ci ñëw peut-être après terrain gaal gi aussi sur les sagne tegat fa teg fa 3 millions xam nga 1 million 500 ak 3 millions boko ko rek da ngay xamné li euh presque mëna naa xam lu ëpp ci amateur ci 3 millions la ñuy dem peut-être nak le promoteur bu nek euh, am nga say amateur bop am nga say nitu bop ñoo ñoonu même bu dee dem fale aussi dañ la ñëwal ba paré soko dem ci benen côté té lolu day metti ci amateur yi parce que bo xolé terrain gaal gi ak euh, Grand Yoff même franchement ça ne fait même pas 1 km donc ñaari gala yu tonnonu war fa mon di am té lolu man duma interpeller interpellé duma interpeller CNG duma interpeller les anciens wala duma interpeller interpellé c'est les promoteurs en tant que tel la interpeller parce que promoteurs yi ñu wara manko ñu wara a ñu war di xàccandoo di dorando nek ben ba nga xamantene lepp liñu bëgg euh, ci lamb muy ci côté changement ci côté règlement ci côté bu mëntu doon mën ko am facilement mais avec division bi ñuy def ni dara ñu ko ci ba am ko te je le dis haut et fort avec cette division là ils ne peuvent rien avoir amuñu mënu ñu am ben avantage ci côté CG wala ci côté mënu ñu ko am parce que bon, toujours, au temps de les promoteurs de la lutte avec FRAP avaient fait une réunion, waxtaan seen biir ba Dogo, ne ci benn département bi bëggatuñ ci benn gala ñaari gala ñu fi tegandoo ci benn département bi. mais pourquoi pas les promoteurs de la lutte ne peuvent pas le faire te alors boo xoolee les promoteurs de la lutte ñoom yëpp ils sont des mais quel quel est le problème quel est leur problème association bu baax sax ñoom amuñu ko. loolu man maa wax association bu baax sax boo xamante ne bu wootee ñëw ci promoteur de la lutte amul ah amuñu. Si def générale donc l'Association des promoteurs en activité de l'aide simple est-ce que moi je dis que ça existe parce que un problème yu problème régler facilement Pourquoi les grave ben association village hein, e, mais pour pour village problème peut-être parce que ñaari village ñoo des villages xëy na recette bi ñu ci am mën nañ ci defar lu bari seen village mais loolu noonu dafa war a dellusiwaat village dañu war di tëgg mais boo xoolee en fait aussi Grand Yoff pour nga am ko rek problème la nit day wut Grand Yoff ba sonn du mën am date du mën am date kenn benn promoteur am fa lu mat ñaari date wala ñetti date voire même quatre date est-ce que c'est c'est tout à fait normal du yoon dañu war di yombalal affaire yi nga xamante ne dañuy def benn liste tous les promoteurs qui veulent qui qui ñi bugg a tëgg ah ñu beneen suñu une liste mu bañ a mais bo woté grand bu fekkee ne day ubbi tey sax gaay dañ fay def ay 4 h du matin ñi 2 h du matin ñi sax dañ fay fanaan ba bët pour lan pour rien que pour odat est ce que ça vaut la peine bu démé benn ba nga xam ñu mënatuñ ko gérer au moins xanaa adressé nañ ko jox grand nañ ko jox le CNG ñom ñu géré les dates côté les dates CNG mën ko géré ni ñi def ba nga xamante arène nationale du am benn du am du am benn chamaillement du am benn problème adressé gor mëna def noonu ba nga xamante du am benn coow mais da ngay gis sax benn date boo xam dañ ko jox deux personnes au nom de quoi daw amona fi problème Ousmane Dour ak Banga deux personnes nga jox ko benn date te kenn rek mo eh, mon am reçu mo mon am reçu bu légal hein date bi ni Souley Sagne dafa am kum ko joxone hein koku dem jël date bi jox ko kenen lolu euh baxul franchement lolu baxul grand yof ak adresse ngot benn la eh, grand yof du moins ak terrain gal gi benn la benn la différence distance bi surwul donc ñaari date war fondi mon am Si vous regardez les DAO, le Ghana presque peut dire presque pas d'argent. hein n'y a 25 journées. Si vous avez 20 journées, il y a 21 journées, il y a 20 journées. Le Ghana Yoff. Le de Yoff a 57 journées. Moi, j'ai des man J'ai des archives. man chaque jour, chaque année, le nombre le nombre de galas, je l'ai recensé. Même si je n'ai pas de TV, depuis 2006 jusqu'à présent. Depuis 2006, c'est ce que j'ai fait dama doon bind chaque jour ki tëgg jour bi ki ko ak ki même li nga xaw ci lu ak bon donc depuis 2006 ba tey wax Grand jour, li mu journée kenn xam une quarantaine voire même une cinquantaine ay 57 50 55 mais léegi Grand na tout 20 pour man gestion bi la ci parce que aussi boo bëggee jël benn jox ko mais te centre mais du nga xamne day initio ba nga xamne kenn ki day mujj désister am mentu fois jël na dat jamm jox ko nit grand man mako wax am mentu fois jël na datu nit jox ko ben dat jox ko ñaar nit al grand yof ba nga xamne kenn ki day mujj bayyi ke fekkan da ko dal da ko mujj rambousé lim lim joxawon mais c'est pas normal nañu xol digënté nañ tok autour du table les promoteurs ñi nga xamne ñoo gérer terrain ak ñi gérer grand nañ toog autour d'une table parce que loolu sax moo tax ñu déplafonné Grand Yoff terrain gaal gi moo tax millions mais loolu moo tax ñu déplafonné ko te attention millions ku ko teg Grand Yoff bu feesul da ngay daanu de lii man maa ko wax 2 millions ku ko teg Grand Yoff bu feesul da ngay daanu parce que chargé yi tax te 2 millions du caaxaan 2 millions du caaxaan même boo defee billet 5000 ak 3000 bu feesul da daanu parce que boo xoolee yëpp yëpp yëpp yëpp à part parce que Jofori production bu Abdou waxal sax amuñu amuñu lu bëri Hein? Parce que là, il y a des dans les villages, les régions, les départements, il y a des gens qui ont été mis en de Si Alba, pour un problème. Pour que vous une mise de 1 million, c'était tout un cas de problème. Une mise de 500 000, 200 000, 300 000, 400 000, 75 000, ça, c'est ce qu'on a fait. Les gens qui ont 3 millions, 3 500 2 millions, 1 million qui ont été drapeau, comme grand donc on changement am du ci côté mise bi mais de ji ba faire dafa la lutte ne marche pas pourquoi je dis que la lutte ne marche pas parce que la lutte n'a pas son règlement spécial lutte simple amul règlement boppam ñu ngi sukkandiku ci règlement CEDEAO te dafa jot pour lutte simple parce que la lutte simple c'est pas pas une lutte africaine c'est une lutte sénégalaise purement sénégalaise waaw yëfu Sénégal surtout la lutte simple c'est yëfu Sénégal la donc fekk yëfu Sénégal la faut dafa waroon il faut un règlement spécial pour maintenir simple mais pour côté y a deux poids deux mesures y a deux poids deux mesures Ce que Dakar au niveau des régions au niveau des villages au niveau des départements et puis le CNG mon englobe mon entouré coiffé Hein? coiffé simple droit au delà de de heures au delà de minuit droit au delà de minuit. Mais vous voyez commence à 1h du matin, voir même minuit et quelques au village, à 4h du matin, 5h du matin. Moi, je parle en connaissance de cause. Je fait que je suis venu, le lendemain, Tabaski, la lame 5h et quelques, nous sommes venus en enceinte. Mais ce qui avoir une guerre. Nous même si nous avons des tels, telle, nous avons au moins 10 lames, 10 h maximum, minuit, comme les de Dakar. Mais l'homme, commence à commencé au minimum 4h du matin, 5h du matin. ñi nga xam ne dañoo ko seetaan mënuñu ko ñàkk a seetaan parce que seen passion la war a xëy dem am ay jur ci àll ba nga dem seetaan fekk balaa nga ñu fekk ñu yeew yëpp loobu nooy def te loolu yow ngir am yàlla loolu nga yaakaaroon nañu jéem a essayer jéem a moderniser tuuti jéem xool nu ñu waxtaanee ba toogaat toogaat ak tuuti tam ñu respecter les inscriptions ñu respecter aussi les démarrages des compétitions au niveau national les démarrages niveau national parce que affaire waru yem waru war waru yem Dakar kese gis nañ ku wàññi ben mise am xaw ma ngooy la xaw ma 1 million ci poids lourds yi dem ba nga xamante dem ba ci ba mu neex ko mu def ko cinq cent mille te loolu mënu ko def Dakar pourquoi lolu lan mo tax lolu c'est pas du tout normal mise boo ko déclarer déclaré boo déclarer ba ñëpp yëg ko waratoo ko wàññi te même sax 72 heures avant les compétitions la mise doit partir au niveau des comités locaux

mbër nan la ñuy def da ngay obligé yow boo xamante amoo ay poids lourd da ngay tey sa temps ba nga xamante ne euh, fële jeex na nga soog nga soog a démarré non loolu day garaaw da sax woykat boo xam ne day woy Dakar ba mu jeex tak mu dem village fekk commencé guñu wala tëggkat wala mbër bu defee ba jël drapeau nga bañ a tëgg sangam dugg sa oto dem dem jëlaat lam jooju te loolu c'est pas normal parce que heure heure de commencement yi heure de démarrage tournoi yi benn heure la war a doon waru nekk ñaar heure

même bu ci aussi rarement lay donne amul ciow amul violence amul dar waaw di ñaan rek les promoteurs dal lutte simple nañu essayer trouver un consensus tok waxtaan ba ba juboo ci ben cadeau bi nga xamantene ne Sénégal gi ak Grand dotul dotul coïncider parce que lolu franchement arrangé na mbër yi ah, mais arrangé lu dé ça n'arrange pas les amateurs té arrange sax même promoteur parce que mën nga teg am ci dara mais mën nga teg yeen ñaan ñëpp kenn du ci am dara té boba pertement lay doon ci yeen ki mën na gagner ki du gagner ki gagne, day lor Ha? wala yeen ñaar ñep ngeen tembo du ngeen gagné du ngeen perte mais du ngeen gagné ha? wala ki am dara ki amul dara ki am tuti ki du mos dara lolu mën na am donc lolu nañ ci nañ ci wasu ak promoteur yi lal simple lay waxal nañu tok autour d'une table waxtaan ba nga xamantene dañ tuti consensus mais lolu xamna dina xawa jafé parce que ku nekk sa poche ngay dugal ku nekk aussi sa interpersonnel ngay xol Entre personnel boobu nag la ñu war ba xam la résoudre ce problème là entre le terrain Galgui et l'adresse de Grand parce que franchement euh, terrain bi euh, Galgui c'est un terrain c'est un terrain de foot donc euh, ben je ne dis pas qu'il n'est pas habilité pour la lutte mais mais franchement il taxuko ko donc euh, fële nak grand nga xam kenn mënu fa football kenn mënu fa basket kenn mënu fa def lenn lu dul pour lamb kese la nañu xol nan lañ koy défé bu jëm ko arrondir même le terrain qui est à côté sax su fekkente ne eh, gars yi mën nañu dajale pour jenn ko wala ñu def le tout pour bolé ko ci day xawa bax bu ko defee gaal gi du teug ñu yëm Grand yof té loolu fofu yaakaar na né suma ma d'après d' après écho yi investigation yi defoon dëgg naa ne arène ba ñoko ko mais dañ ko jaan autant parce que xamuñu woon ne lamb dana dem ba toll nii léegi nag nañu jéem xol les autorités communaux ba nga xamante ne dañ mën ba mu dee dañ leen di jox xaaliss sax ñuy ñu ñu ñu ñu remboursé waa jooju tegal ko astout hein ah, diko diko di di fay kii bi ba mu ba keroog mu jeex dana bax parce que Arsenal day gën xaaliss xaalis. day gën a samedi da ko luyee 75000 quinze mille dimanche nga luyee ko 100000 francs 175000 ci ben semaine loolu franchement c'est une fortune plus ñoom seen siège ak sen consort c'est une émission Njoktoor la avec annonce les anciens goulards de Genda du 18 au 21 euh, euh, décembre avec une mise de 1 million 500 en trois catégories Doudou Kane Doudou Sène fay les Fatou de Nolet du 22 au 23 décembre avec une mise de de 000 francs pour foofu Pape de moo fay les ak Lambo, Cissé Lanem, hein. euh, lamb Lanem le 25 décembre le 25 décembre les donnes euh, avec une mise de 1 million nous une mise de 1 million Babou Fay Mofanek ak Fatou Ndiaye euh, production c'est production scène production le 24 décembre le 24 décembre à Grand avec une mise de 1 million de francs CFA par le fay ak les jeunes de Kersosé le 1er euh, janvier 2024 avec une mise de 1 million 500 animation Bengloum lay nek ak Mor ah, fils de Mbayang TV euh, suñu confrère là le 10 février lay euh, Tata Tataguine Escale avec une de 1 million de francs CFA Palo Mbayang Loum euh, les jeunes de Ndiogone Ndiak du 3 au 6 février janvier hein, du 3 au 6 janvier Mbayang ak Gorgui Ndiaye moo fay 6 bœuf plus 28 000 francs plus un sac de riz de 50 kg, plus un sac de riz de 25 kg. Lambo, Mourou, le Playboy de Niakhar le 29 décembre avec une mise de 15 bœufs, Momongom. Hein, euh, le 29 décembre, 15 bœufs plus. Euh, 15 bœufs, 15 hein, bëf moo sais nekk xam na dina am xaalis parce que kenn du teg nag kese te ci dara mais defu ci somme mais 15 bëf la teg mbayam lu moo fay nekk ak Momo Ngom ah. Euh, Lamb biir arène arène TV kooku suñu consoeur la muy la Lionne euh, la Lion, la dame de fer Ndeye Taise, numéro 2 de Mbour. moom man maa ko ko parce que jigéen bu mën la franchement ku jambaré le 13 janvier lay tëgg à Mbour avec une mise de 1 million 500 francs CFA en trois catégories drapeau monsieur le maire Cheikh Salan. Hein drapeau, M. le maire Cheikh Issa le 13 janvier 2024 euh, à avec une mise de 1 500 francs CFA. Euh, Ndeye Fatou Fatou nous ah, assuré animation web. le maire Issa Sall mooy parrain bi l'a ah. lamb le terrain municipal le 23 décembre avec une mise de 2 500 francs CFA en deux catégories Bien, ak de Gagé Bokar ah. Gagé Bokar du 26 au 27 janvier 2024 je suis avec une mise totale de 8 bœufs plus 100 000 francs Jour euh, du 29 au 30 décembre avec une mise de 10 bœufs plus 150 000 ak le 29 décembre euh, du 29 au 30 décembre hein, du 29 au 30 décembre avec une mise de 10 bœufs plus 150 000 Benglum ak euh, Lambo, club de Demba de du 24 le 24 décembre hein. euh kooku genre mbapat la rek Ben nak la fa teg francs. mille franc ak benn saako ceeb ah nag cinquante mille franc ak saako ceeb pour toog jëyeen CSN le 27 décembre mise bi ñetti bëf la mu ñetti 100 000 francs. Pour euh, ku fa nekk Paul ak euh, Adafayan hein. euh, baak baak baak Bayo de Felane ah Bayo de Felane Cheikh Ndiaye hein baak Bayo de Felane Cheikh Ndiaye le 6 janvier 2024 ah mise bi 1 million là euh, ñaari catégorie lay doon le 31 décembre à Grand Yoff avec une mise de 1 million avec une mise de 1 million francs CFA ya maye ak tier Mbaye 31 euh, décembre à Grand une mise de 1 million fay euh, production du 6 au du 5 au 6 janvier 5 hein. au 6 janvier à Mbamloog mise ba ñetti nak la ak 80000 francs fukki junni ak juróom animation ba Sana sen la ak Faya Mbodj Diambougum euh, de Sine Saloum du 4 au 5 février 2024 euh, mise ba 1 million 500 la deux catégories Mbeng ak momongom sen émission Njoktoor annonce lamb bi jàll na di wax internet gis nañu abonné mais ñi abonné gu nañu abonné ci Mbine Yalane TV ñi nga xamante ne bi Ndinane TV dina daw ben boor nañu abonné ci bu abonné nga laal cloche de notification bi lolou melni ni jóolóol yi loolu moo lay permettre vidéo boo xamantene duguna ci bin ci Ndinane TV rek euh day solo sa taf nga xamné binan TV dugal na vidéo nga xol ko visé na ko ba pare nga partager ko aimé ko wa partager leen vidéo yi parce que visibilité bobu aussi franchement soxla nañ ko actuellement soxla nañ visibilité bu baax donc aimé leen partager ak liké wa seen émission njok seen émission Njoktoor avec ñak Albert ba ci euh, benen numéro inshallah